tey mais euh, obtention permis de conduire euh, fii ci Sénégal nekk na aussi beneen jafe-jafe euh, ku nekk mën nga ko am am na ñoo xamante ni duñ sax def auto école dañuy toog seen kër ñu indi leen permis ñenn ñi aussi dañuy nekk di lang ba xëy suba nekk chauffeur dans ces conditions quand même booy dugg ci oto di dawal te xamoo code de la route lu la neex ngay def waaw xam nga Sénégal dañ lay wax ne dëkkul lijjanti la te dëkk moom bu ñu demee ba ñëpp d'accord wala boog ñu gën a bëri d'accord ne dëkkul lijjanti la daanaka tout tout est possible. nu nga ko waxee noonu ci euh, euh, permis bi noonu la valable ci yeneen ak yeneen ak yeneen i kayit yoo xamante ne nii normalement duñ la ko jox te euh, nekkuloo ci condition am ko. effectivement malheureusement nag Sénégal comme nu nga ko waxee côté boobu moom lu ñuy déplorer la nga xamante ne tey. daf lay leer ne bu nekkoon ne auto école boobu daf la waroon a jëlal ay un mois deux mois des fois trois mois yow nga bëgg daa en une semaine nga def sa passage auto école ba jot sa permis mhm. boo ñëwee si télé bi tamit da nga koy wane rek tout simplement situation bu gën a ndaw mën nga afole ba am noo xamante ni da nga koy comporté wo euh, euh, euh, bu bu jaarul yoon léegi nag dans tous les cas xam nga man moom li ma wax rek mooy que euh, bu yooyu yëpp di xew. Mhm. c'est parce que état bi moo koy cautionné. mais bien parce que. état keppa gi bu fi nekkee. Mhm. c'est parce pour véritablement xool li nga xamante ni moo gën ci naka la euh, société bi di évoluer wàññi gaañu gaañu yi nga xamante ni éventuellement mun nañu ci am. léegi nag bu nekkee ne yow gis nga ne secteur bii nii ñu ngi causer chaque année ñuy déplorer ay accidents yu dul jeex ñu dem ba. ki nga xamante ni mooy président de la république joxe ay chiffres yoo xamante ni da nga naan chaque jour deux morts par accident au Sénégal en moyen léegi yow xam nga état bu sérieux bu demee ba joxe chiffres yooyu lu mu war a def mooy comme ni ko ayoo ba waxee sànq def benn conseil interministériel mais dans tous les cas sax Sénégal moom jàpp naa ne secteur boo fi wax ne am na problème rek xamal ne defoon nañ ci ab conseil. interministériel. def seen conclusion malheureusement ci ab tiroir lay mujjee kenn du ko appliqué. léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni jàpp nañ ne loolu problème bu ñu war a solutionné la. maanaam dañu war a def de sorte que bu nekkee chaque année dañuy déplorer 700 morts par accident. ñu ne li nga xamante ni loxo moo ko ciy def vraiment ñu ko fexe ñu ci def li nga xamante ni moo war ba mu wàññeeku. te loolu bu boobaa nit ñi amee permis day bokk ci li nga xamante ni da ngay jàpp ne day sooke accident yooyu. Mm-hmm. comme ni ngay waxee également ak ministre de l'intérieur mu wax ak les policiers jox leen euh, comment instruction yoo xamante ni mais dañuy gën a sévère ci télé bi. Mhm. xam nga maa ngi doon wax bu yàggul dara que mairie de Paris temps bi Delano yi nekkee foofu euh, le maire. Mhm. mais ci contravention yi ñu yi ñu doon fayeku euh, chauffeur chauffard yi. Mhm. mais lu bu ñu ko dajalee lu mu constituer seen budget kenn xamul lu mu toll. léegi maanaam réewande gi nga xamante ni dafa am ñoo xamante ne nii dañ koy wane ci bedd mi. loolu day day permettre état bi wala commune bi mu engager ay fonds au lieu que kenn koo xamante ne ni def na lu dul yoon nga xamante ne ni yóbbu ko prison tëj ko foofu un mois daanaka amul benn njëriñ nga door ko amande boo xamante ne ni saa su ko fayee balaa moo posé ti bu mel noonu dina réfléchir réfléchiraat. Hmm. te des fois sax da ngay dugg ci oto yii nii mais mu leer na la ne euh, euh, comment dire chauffeur bi moom euh, fii nii. su fa jaaree am na mille chance policier bi euh, arrêté ko. mais day préféré dem wiiri ji pourquoi parce que xam na ne suñ ko jàppee dinañ ko euh, bu ko arrêté dinañ ko dinañ jël si moom xaalis boo xamante ne dina ëpp sax boo moytuwul le chauffeur ba di fay. léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne amatul possibilité wiiri foofu rek la mën a jaar mais force mu tegu ci yoon. bu nekkee ne ko comme ni ma ko joxee exemple léegi rek mu leer na ne yow euh, yaa ngi yor tata am benn client boo xamante ni maximum deux cent la lay fay. te bés boo ko jëlee mun nga tourner dajeeg policier bu récupérer ci yow 5000 francs mhm. est-ce que 200 francs dina tax nga jël le risque de payer 5000. képp képp képp aussi simple que mhm. nag li ci des man pour man. Euh, ci ci ci sénégalais la parce que da nga naan dañuy defaraat justice bi da nga naan dañuy defaraat pêche bi da nga naan dañuy defar tel tel tel mais sénégalais yi également war nañ leen a defaraat. changer comportement yi bien sûr. <laughs> changer comportement yi euh, baax na si parce que aussi euh, suba bu ma moytu bu ma jumul si la BRT bi di commencer di daw euh, ayoba ba peut-être dina doon solution ci peut-être accident yi nga xamante dañ koy wax parce que aussi boobu ba tey ñi ngi wax waxum solution gisaguñ ko mais BRT peut-être dina indi en tout cas benn vent bu bees ci li nga xamante ni wàllum transport la dem ba dëkk fii ci Dakar. fii ci ndakaar waaw effectivement BRT bi comme moom yoonu boppam la yor. boo xamante ne vraiment amul risque am choc frontaux en tout cas euh, peut-être dina lijjanti lu bëri mais man sama sama sama crainte ci BRT bi mooy est-ce que dina mën a euh, absorber lépp am ah, mooy mooy mooy euh, nu mu tuddati demande bi nga xamante ni am na ci axe bi géejowaay centre ville bi yëpp parce que géejowaay ci département yi gën a peuplé la bokk. Euh, boo jëlee parcelle aussi ci département yi parcelle ci ci ci ci ci ville yi gën a ci ville yi gën a peuplé peuplé la bokk euh, est-ce que am nañ nombre de bus suffisant boo xamante ni dina mën a assurer euh, le transport de tous ces gens-là surtout à des heures de pointe maanaam bu ñu xëyee di liggéey ak bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wàcc Euh, comme nag euh, ministre bi li mu wax mooy lancement de mise en service progressive. Mhm. mise en service progressive mooy euh, ndànk-ndànk la ñuy ndànk-ndànk la ñuy ndànk-ndànk la ñuy demee ndànk-ndànk boobu nag xamuma ban ban ban ci ban ci ban date. vraiment la affaire bi mise en service effective bi wala global euh, di am mais euh, su fekkee am nañ assez de bus pour pour desservir euh, axe boobu nga xamante ni mooy Guédiawaye centre ville mm-hmm. je pense que mën na lijjanti lu bëri ci ci ci ci ci ci transport bi wala ci ci accident yenn yi nga xamante ni da doon am tey ci ëpp nga xamante ni bus Tata yeeg taxi yeeg Jakarta yi ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon sooke <coughs> <coughs> pardon maintenant nag Euh, BRT bi pour man lijjantiwul problème mu problème mu problème mu euh, discipline bi. Mhm. Euh, nga xamante ni mooy am ci mooy am ci suñu tali bi. dakaar man pour man li koy lijjanti sur le sur dans le fond li koy lijjanti dakaar dëgg dëgg dëgg problème transport Dakar. mooy ñu désengorger li nga xamante ni mooy mooy mooy dëkk bi. parce que soo jëlee BRT ak TER c'est plus de mille milliards investis. yoo xamante ni ci benn secteur la muy transport yi ak ci dëkk dama koy fàttali dëkk bi nga xamante ni moo gën a tuuti ci Sénégal 0,27 pour cent la Dakar di représenté ci superficie Sénégal gi yëpp Dakar concentré plus de 25 pour cent de la population sénégalaise loolu moo njëkkuta normal ci gouvernement boo xamante ni da nga fay ñëw toog bëgg a liggéey loolu foog nga lijjanti ko problème boobu foog nga lijjanti ko barok iniquité boobu foog nga lijjanti ko foog nga lijjanti ni nit ñi génnee Dakar dem ci région yi maanaam nga déconcentré service yi nga xamante ni dafa concentré nit ñi fii dafa détenir nit ñi fii Dakar yëpp nga yóbbu leen ci ay régions yoo xamante ni on a parlé de pôle yoo xamante ni dañ koy def ci yenn ci yenn ci yenn régions yi. Mm. pour man loolu c'est la solution nit ñi génn Dakar vraiment majorité. Mm. génn. Euh, dem ci région yi euh, am yeneen activités yoo xamante ni mun na leen attirer foofu. pour mm-hmm. ñu ba ba ba ñu mën koo développer te loolu dina participer à beaucoup développer euh, les autres régions ba pare dina participer aussi a à régler le problème. de la promiscuité à Dakar ak problème mu transport bi nga xamante ni am na fi ak xat bi Dakar xat yëpp. dina ko mm-hmm. dina ko dina ko dina ko lijjanti. Mm-hmm. donc BRT bi on attend de voir. ndax vraiment parce que am na ay craintes aussi yu ñu ci soulever mooy. Euh, voies yi nga xamante ni BRT yi bis yi jël nañ ko. Mhm. voies yaatu na. Mhm. ndax beneen voie bu bu bu bu gën a bu gën a étroite bi nga xamante ni moom la moom la ñu réserver taxi yi bus yi ndax boobu su amee problème ci diggante bi du indi embouteillage monstre comme d'habitude est-ce que solution bi ñu créé muy BRT du indiwaat yeneen problème yoo xamante ni euh, mën na ko jur. Euh, ci axe boobu nga xamante ni mooy Guédiawaye euh, centre ville mais on attend voir en man crainte yooyu laa am ndax mhm. offre bi dina dina dina dina euh, li nga xamante ni mooy demande bu fort bi nga mhm. xamante ni observé dañ ko ci ñuy jógee banlieue le matin di dem ville ak ñuy jógee ville le soir di ñibbi banlieue ak est-ce que tamit bus yooyu voies yi ñu jël bu amee problème ci yeneen voies voies secondaires yi est-ce que dina dina dina du indi problème bu gën a bu gën a mag boobu yu sénégalais yi am mooy que euh, BRT fu muy jaar euh, yoonu boppam la mais ay intersection la ay feu fa nekk feu de circulation mm. euh, indiscipline bu ñuy wax souvent day tax ba pamarta bu gisee feu bi rouge da koy da koy day day brûler fa comme ni ñu koy waxee jàll te bu jàllee mën na dajal BRT accident yi risques yi dafa gën a bëreeti ba tax na sax ñoom ñu ni ci seen yoon boobule dañ fay teg ay policiers ci chaque peut-être chaque chaque lu mu tudd intersection mm. est-ce que tey ji euh, loolu moyens yooyu ñuy jël def ko ci BRT bi jar na ko euh, vu que bu ñuy tàggatoon askan bi ci discipline respecte euh, loo chauffeurs yi li nga xamante ne mooy code de la route yaakaar na policiers daañu am leen lu ñuy def lu dul di wër di surveiller BRT ak di xool ndegam sénégalais ñi ngi discipliné wala indiscipliné ci tali bi waaw côté boobu moom jàpp naa ne Euh, pour ñii fi nekk nii moom c'est trop xanaa kay génération yi di ñëw ñu xëy na am lu ñu dugal ci seen bopp yi euh, ko ko euh, mais dans tous les cas BRT bi lan lañu wax ne moom moo nekkoon objectif bi mhm. maanaam faciliter le déplacement wàññi embouteillage mhm. day doog a commencé mais bu ñu toogaatee un fii di defaat débat ci BRT bi mhm. ñu poser question ndax wàññi na embouteillage bi est-ce que permettre na Dakar waaye ñu gën yombal seen déplacement. Mhm. bugguma anticiper mais boo moytuwul réponse bi non lay doon. Mhm. puisque terre bi loolu la ñu ci jaayoon. Mhm. que dina fexe ba embouteillage yi wàcc ak wàññeekoo ak yooyu ak bi ñu demee ba def bilan bi gis nañu ne lañ ñu ci jaayoon ak li xew amul. BRT bi également yoon boppam la am mais day fatt yoon yu bari. ñu bëri ñoo xamante ne ni bu fa BRT ba amuloon xëy na duñ fi nekk di wiiree wiiriwaat mhm. euh, euh, comment dire bi tey da leen di bloqué intersection yooyu ngay wax yu ci mhm. bëri da daan permettre ngay jóge côté bii di dem côté bële très rapidement mhm. léegi BRT bi dina tax nga wiiri ji fu sore sore wala nga xaar euh, comme tu as dit fa yooyu léegi nag li nga xamee ne xam nga feu rouge moom jàpp naa ne bu ñu demee ba ay feu moom bu demee ba installé ko jaratul policier déedéet déedéet jaratul policier parce la personne humaine. léegi bu ñu demee ba teg foofu ba pare teg policier mooy que ça ça veut dire que ne y' a quelque chose à la tête des problème. <laughs> léegi dina xalaat. c' comme passage à niveau yi train yi di jaar. boobu yaakaaruma ne di nga fa teg policier. parce que xam nga ne boo jaaree foofu euh, ba train bi jaar sa kaw. mais euh, dootul lay dootul dootul soxla ñu lay woo dinaan la lu tax nga jaar fekk lu tax nga bañ fee jaar donc pour man. bu nekkee ne euh, foo xamante ni nii la bus bi danga fay jaar régulièrement ñu installé fa ay feu jàpp naa ne jarutul woon sax policier ñu ko fay teg bu ñu demee ba teg ko fa mhm. c'est parce que xalaat nañu ne des risques am ay chauffeur yoo xamante ne nii foo bi mun na rouge sax ñu ne dañuy jéem a njëkkante ak bus bi ba jëyee mun ca am wala borom ceeg-ceeg yi sax jël euh, yoonu BRT bi bu ñu gisul lu leer ak borom ceeg-ceeg yi mhm. mais dans tous les cas xam nga mhm. man moom euh, BRT bi maa ngi lay wax ne bu ñu anticiper ci réponse bi jàpp nañu ne li taxoon mu jóg Euh, du du du ko def. Mhm. embouteillage bi gëw ma ne dina ko wàññi. Mhm. li ci Ayoba wax moo ci nekk dakaar moo saturé. oui bu ñu bëggee wàññi gën a yombal déplacement ñi fi nekk il faut ñoo ñu fi nekk ñu am feneen fu ñu leen fu ñu jëm. feneen fan Dakar euh, fees na Thiès euh, tong tong nañ ko pratiquement Sénégal est-ce que amati na suuf. Ah, ah la la y' a trop de rien ci ci ci ci ci ci ah. biti. Hmm. boo boo jéggee Thiès. mais mais ay ay ay ay àll la yoo xamante ne nii mais kenn nekku fa. ngay dem guñ si délibération yooyu. non xam nga xam nga déjà sax. Mhm. Euh, euh, Sénégal capital bi c'était Saint-Louis. oui bi ñu toogee ba nga xamante ne nii indépendance mënuñ ñu koo ñàkk a jox en 58. Mhm. ci la ñu ne dañuy transférer Dakar capital bi. te soo li tax ñu gën ko fee def mooy Dakar benn buntu la nga xamante ni dinañu mën a surveiller luy dugg ak lu fi génn mais en tant que autorité yow boo yegsee ci pouvoir bi pour man li nga war a njëkk a def mooy xalaat ban comment dire centre euh, euh, ban région ngay créer euh, une une deuxième capitale boo demee tey Côte d'Ivoire dañ naan la Abidjan ne la Yamoussoukro mm-hmm. nga dem Cameroun ñu ne la Yaoundé ne la Douala mm-hmm. nga dem Nigéria ñu ne la Abuja ne la Lagos donc pays yëpp yoo dem day am au moins ñaari dëkk yoo xamante ne ni am nañu doole mën a attirer véritablement ñi nga xamante ne ni dañuy soxla liggéey mhm. parce que Dakar fii lan lan moo fi indi nit ñi bu nekkul liggéey géej gi sax gisatuñu ko géej gi mënoon a tax man bawol bawol bi ma jógee njaareem ne maa ngi fii ñëw géej gi gisatuñu ko mhm. léegi kay bu ñu fi toogee c'est parce que dañu yaakaar ne li ñu mën a yóbbu suñu kër yi fii lañ koy jëlee mhm. léegi bu ñu demee ba permetre ñu dans les régions là ñu mën fa toog mhm. am lu ñu sutur là mais même au delà de ça créer une véritable économie mais kenn wutul fii Dakar dara léegi xoolal conditions yi nga xamante ne ni daanaka euh, euh, yenn euh, communes yi da ngay gis population yi nekk ci ñu ci bëri mu leer na la ne xoolal euh, fii nii rek boo ñëwee ci rond point liberté 6 bi ci beneen côté bi xoolal ñaata saret ngay gis foofu saret mhm, mhm. yooyu c'est parce que au village amatuñ ñu fa liggéey effectivement bu nawet bi jeexee léegi ils sont obligés euh, les euh, borom saret yi indi leen fii à Dakar pour gagner quelque chose mhm. léegi yow boo leen bëggee te bañ a ñëw Dakar mais créer leen lu créer lu leen téye ci dëkk yooyu te yaakaar jàpp naa ne à long terme bu buñ dinañ dem ba xëy na am ay njiit yoo xamante ni noonu la ñuy xalaatee ñu jàpp ne Dakar fees na bu ñu amee loo xam ne dañ koy investir investir soit nga choisir Kaolack soit nga choisir beneen région mais nga def ko capital boo xamante ni di nga fa investir luy mën a tax population yi euh, euh, di di fa ñëw bañ a ñëw tout simplement à Dakar dankali koo fi di nga fi def BRT di nga di nga fi def BTT di nga fi def TTB mais du tee af embouteillage yi mhm, mhm. Euh, du continuer indisponible bi aussi wax nañ ko waxaat ko espérons que autorités yi jël seen responsabilité que cette fois-ci ñu gis quand même même changement te aussi euh, sanction euh, ñu koy teg euh, ci ñi nga xamante ni dañu def naka sudul noonu alors beneen mbir bi aussi di problème mu désencombrement ñenn ñi occupation anarchique de la voie publique am na ay municipalité ayoba yoo xamante ni jéem nañ si dara jug ni dañuy désengorger wala sax dañuy dina li nga xamante ni dafa nekk ci talibeek nekk ci trottoir mais souvent li ñu leen di opposé mooy que way Euh, digoo leen ñu woon lii wax ay wax yoo xamante ni dafay xaw a sax euh, doy waar comme si que en fait anarchie bi dafa arrangé euh,